ni ko waxal sa gaañi mi ndax dañu njort ni man yàlla dama am jot nii rek di bind nii rek bind la afa xasibtum annama xalaqnaakum abathan wa annakumu ilayna la turjauna borom daaliye di borom nay lu amaani wax ni yow nit day boo nekkoon di am xel dinga xam ni rotoo ci àddina ngir mbóorontu ngir mbóorontu law kaana za lubbin la ay xana annahu maa kaana unshia batilan aw an dadi mbokk yi bésu tey bii weer wii waaye bésu tey bii a ah, mbokk yi lislaam moo yëkkatiku mbokk yi lislaam moo am tiitër barki dem nag nee naa ci plateau bi murit yi moom dañoo defe ne ñoo moom sëñ Tuubaa waaye Cheikhul Khadim du pour murit dong de Sëriñ Bamba pour jullit ñi la cheikhul xadim mbaaxam ak yërmandeem romb na sax julit ñi mbaaxam ak yërmandeem moom sëriñ bi romb na sax mindee fi moom cheikhul xadim kon tey bis bii kenn ku ci nekk dafa war a jox loxo moroomam ne ko félicitation félicitation julit bu war na ni mbokk jullitam ndokkale na ngeen kenn ku ne war nga ni sa moroom ndokkale Kébé Mballo félicitation kon bés la boo xam ni kenn ku ne sa kanam dafa war a belli kenn ku ne sa kanam dafa war a belli mbokk yi tey bii yéefar yi bu ñu amoon li nu bëgg kon sëriñ bi du dellu waaye nag nduróo gim ko nduróog rasulullah yi moo waral lii lépp keroog bi mu nekkee makkatal mukaram juddoo makka yaroo makka màggee makka yàlla yónnee ko ca makka saay saayu makka ay mbokka maki ñi dëkkee makka di fexe pour rey rasulullahi dañu doon pexe pour rey ko di def ay séminaire di nekk ca daaru nadwa pour rey ko bi ñu ko laajee samaam Cheikh Sidil Hadji Malick dañi ala xuraysun bi daari najwa ci tamaau xawfa rasuli wa najdiyun bi xisbihimi góor gi ni ala waawee xuraysun waa xuraysi ijtamau dëppoo nanu moom waa Quraysin ala xo li daay najwa ci tax moom is euh, euh, xawfa rasuli ñu ragaluñu yonent bi de ñu ko ndax nit la bokk ci ñoom xam nga lu ñu ragala xawfa bi izhari nuuri l'islam min nabiyi sallallahu alayhi wa sallam li ñu ragal dañ doon jaamu 372 yàlla ca biir Kaaba ga ñu ragal leeruk l'islam ñuy taxaw pour rey rasulullah yi fukki ponkal ak ñaar ku ne gàddu jaasi yàlla ne ko ñu waaj de pour la suñu la muñu bu ñu la mënul rey li ñu bëgg mooy génne la waaye tubaab yi ba ñu mënul rey Cheikhul Khadim dañoo pare pour génne ko ah xaw ma nga maam déet dañoo pare ñoom ni xam ngeen lu xewa ah? bu ñu ko reyee ci dëkk bi ku am ku mel ni Sidi Biraye maam si Ibrahima Fall maam Cheikh Issa Diène sol maam Cheikh Anta borom gaawaan Thierno Birahim euh, Ndaamal Daaro borom fit wa jàmbaar yi ko daroon bu ñu ko reyoon fii problème ñëw ah ñu ne xam ngeen lu xewa nanu ko génne teg ko loo xam ni ay mbokkam buñ ko déggatul fàtte ko ndeka ñoom xamuñu da sëriñ bi ne bi may dem ànduma man dong ànduma man dong de ànduma man dong bu àndoon moom dong problème dina am mi ngi ànd ak téere yàlla ba ànd ak rasulullah yi ànd ak saxaabaam yu tedd ya waaw ca géej ga nag mu ni fil baxar ca géej ga Baye Modou Mbaye Baye Modou Mbaye sàmm mu baax mi boroom xam-xam bu mag bii yal na ko yàlla dolli guddal fanam xam nga nit booy wax ba mën nga am xam-xam doo am pédagogie wax lu nit ñi mën a dégloo waaye nit boo amee xam boole kook mbaax lu nit wax da nga cay bég waaye boo amee xam-xam amoo pédagogie bu la nit ñi mën a dégloo yaay indi problème ak a soxor lu nit wax nga ni xamul dara waaye moom boo ko dégloo léegi. bayit boo jàng junni yoon bu la ko firilee nga am beneen déggin ca moom yal na yàlla doole guddal sa fan yi alxaaji daaw góor mbaay bii mbaay muur dafa daaneel rek mu yuuxu lan la yuuxu mbindum seex sëjal xaaji maalik di mbokkum seexul xadiim bokk ak sëriñ bi ci maam Mor maam Mor Anta Sali bokk ak sëriñ bi ci soxna jaaratullaahi sëjal xaaji maalik ak seexul xadiim du ñu ñaari jëmm benn jëmm lanu ndax ñoom bi ñuy ñëw ci réew mi ay ceddoo fi newoon ay ceddo waaye xam ngeen lu war a la ñun ñuy màggale fii ah ñun fii lañu dëkk ñun kër soxna Moominatu mii la ñu dëkk ñun fii lañu dëkk xam nga lu ko war a la nee naa ko daaw daaw jéeg da ngay naawee ñaari laaf soo boo bokkee kër seexul xadim gii nekk fi jàmbaar yi fëkk tëdd bàyyi Moodu nee na léegi kenn du tudd nu murit te du tudd sa baay xam nga lislaam bii ma ni ma ni l'islam bii xoolal l'islam bii li tax mu dëgër xoolal l'islam bii lu tax mu dëgër njool màkk julli gee di ñaanal Seydina Ousmane ba fajar yàlla yàlla na nga baal Ousmane yàlla yàlla nga jéggal Ousmane yàlla Ousmane lu mu def bul ko xool yàlla jéggalal Ousmane ba fajar xar mooy attaquement moo am kees gi amul xaalis a ah, gars yi xaalis baax na de attaquement am xaj daam attaquement moo am ñu war a dem xare soxna moomitu kees gi amul xaalis te xare bi jàpp nañ ko ba noppi faaw ñu dem amuñu fas amuñuy jaasi amuñu ay mbubu koŋ amuñu lu ñu bàyyi seen kër Ousmane ne rasulullah yi ñaataay dem nabi nekko ko juróom benn euh, ñetti téeméeri nit ak juróom benn fukk Ousmane nekko ko ñaataal am fas ñu ne ko bari wunu ñi ci am fas daal mat nañu téeméer Ousmane ne ku ne naa la jox fas ku ne naa la jox mbubu koŋ ku ne naa la jox jaasi hind du ma ci yem ku ne naa la bàyyil dépense sa kër juróom benn weer du ma ci yem naa la jox yóbbal njol maa ko julli gee safa wittar ne asalaamu aleykum yàlla yàlla na nga baal Ousmane yàlla yàlla na nga jégal Ousmane yàlla Ousmane lu ma defati bul ko xool ba fajar xar e mbokk yi loolu financement la gis nga borom xaalis yi dee leen jaamu yàlla ci seen i alal xaalis nag deel bari looy nafi la ndax bari ay yiw waaye ku bari xaalis nay jaamu yàlla ci alalam bàyyi njuga kabe sa bàyyi jaamu na yàlla ci alalam soxna Muminatu alaaj daaw góor mii teewam fii alpha yi mayoro la ndax Marème Dieng Saala la jur Marème Dieng xam nga jura Fat Cissé Fat Cissé Fat Cissé Fat Cissé mooy taawu maam Ahmad Cissé ca maam Amadou Cissé moo njëkk a mokkal xilaasu bu Seydil Haaji Malick bindee sa maamay weer balaa wow mu mokkal xilaasu dëhëb fii siiratil xayril arab kooko jur sa yaay xam nga ko ko ah, xam nga ko jur Assu Njaay soxna wele xam nga ko jur soxna wele maam alfaahi ma yoro mi bokk ak faa waat mi jur alaaji Malick ndey ak baay sa maam sa maam sa maam sa wele moo ko wele noonu nga koy toppee ba ci rasulullah ki xam nga ku jur sa maam déglu déglu déglu yaay sama xarit maa ngi ñëw maa pap maa ngi ñëw waaw ma soo waxee soo ma dogee doo jël kàddu de soo ma dogee doo jël kàddu di alaaj basiiru alaaj ma àggale ma areeraat sa kër gii sa kër gii yor yoru màggal soxna Mominatou li muy wax du waxu géwël xam-xam lay wax te ñi fit ne xamuñu lii nañu ko déglu ndax ñu xam ko ndax bu ëllëgee ku ñu fi gis ñu xam ni kii lii moo ko fi indi waxal jërëjëf soxna Mominatou papa Abdou Aziz Ndiaye soxna umu kalsum si moo si moo ko jur kii sëtu Seydil Hadji Malick la déglu leen déglu leen silence sa kër gii nag mboolem turux xii di nga leen fi gis waaye Kébé njuga loolu sa jikko la mënoon ngaa bokk ci askan wu baax bokk ci askan bu tedd doo gis kenn xam nga luy xam nga luy dalal gana kanam du bernde kanam kanam kanam mooy njëkk a dalal waaye sa kanam gi tàllil nga ko boole koog mbaax boole koog tedd nga boole koog tabe te rasulaay nee na ku jox nit mu lekk ba suur mel na ni tabax nga julli jumaa junni juma non Cheikhul Khadim kenn xamul lu mu doon na ñëw santale ma yàlla bu leen ci yam li tàmbalee ci ginaar ba ca gileem mbo xoolal mboolem lu dagan maanaam mboolem lu dagan a lekk laa wax de pitax am na lu ko gën a ndaw picc yi sax am na fi picc picc waaye soxna Mominatou ma wax la ni la danga naawee ñaari laaf bokk fii ci kër Seexul Xadiim nga jeex takk ci Sëriñ Bamba ba nu xam ko bëggoo lu dul Sëriñ Tuubaa bëggoo lu dul njabootu Sëriñ Bamba ji bëggoo lu dul Sëriñ Saaliwu Mbàkke soxna moomi waaye nga bokk kër Seydil Hadji Malick moo a bàyyi Modou Samb daaneel alaaj daaw góor jël mbindum jàmbaar ja seex Seydil Hadji Malick nga xam ne ñun mooy sunu sëriñ olo fay wax ne ragal péete day xañe déedéet du xañe wërsëg cër lay xañe cër cër xaar xaar xaar ma daane xaar ma daane du foofu de du foofu du foofu Aji Mansour, Rabbal Khawmi, Bi Jadwa, Mansour góor nga ca as jërëjëf damay damay daanal damay way sunu moomi damay daaneel damay daaneel ndax yor yor waa ngi weesu waaye sunu moomi natu ma wax la ni la ma wax la ni la lii waral njaboot Alaaji Maalik gii amuñu sago fii ci sa kër gii waaye ku ci ñëw day mel ni Touba gii la dëkk araba wax ni deret dafay rogalaat addam mu dasaasa Marème Dieng moo la jur Faat Siise jur ko Faat Siise mooy taawu maam ah sëñ Amar Siise ca Pire sëñ Siise laa wax nii la mi dun moo njëkk a mokkal xilaasu zëhëb bu Seydil Xaaji Malick bindee moo koy weer mokkal ko moom xilaasu zëhëb sa maam boobu sa yaay sa mooy taawam kookoo jur sa yaay xam nga ko jura Assu Njaay xam nga ko jur Assu Njaay soxna wele soxna wele alpha yi ma yoro samam alpha jëli woon mbir ya samam alpha départoon ca gaaya gaaya la déparé dem ore fonde fekk fa Seexu Omar boobu Seydil Hadji Malick ñëwagul ñi ngi àgg ore fonde bisu àllarba maam Cheikh Omar Foutiyou Tall génn ñii la ñu àndal ku ñuy wax Modou Lo Babacar Niass Babacar Samb Malamine Sarr yokk Moussa Gueye samam alpha gën caa doon ndaw hmm. am fit doo doon jàmbaar moom maam alpha yi ma yoro xam-xam a bari wilaaye ga bari moom maam alpha ma yoro mi bokk ak Fawad nday ak baay Fawad la jur Seydil Hadji Malick hmm. keroog bi soo seexu génnee aljuma ca yoor yoor maam Cheikh Omar Foutiyou taal mosu leen gis dañu ana alpha yi ma yoro mu ni ko maa ngi nii taal ana sër ba la sama jigéen ba jox ne la foo dem war naa faa dem joxal ma sëriñ bi na ma ñaanal barke alfa ana sër ba maam alfa xool gisul sër ba yokk Moussa Gueye mi bokk ci délégation bi yëkkati benn sër jox alfa ne ko joxal sëriñ bi sëriñ bi mu remplacé ko jël sër ba teg ci ginnaawam ne ko du bii alfa wutali bëkk néeg ba xool la ñu ko neexalee mu nangu sër ba jox maam seexu Umar Fuuti Taal sër ba sa maam moo jëli woon mbir ya seexu jël sër ba taf ca dënn ba ne fuuta ñu ni ko taal mu ni fuuta ñu ni ko taal mu ni fuuta ñu ni ko taal mu ni fii ma yem ci tariixa bi ba ca doj wu mag wala may seen ta ndox ma tamay doju ngor lépp dina wesaaroo di ay mbalaani wasifa dina naasiril xaqi bil xaqi te doomu borom sër bii moo koy àggale mooy Seydil Hadji Malick sa maam kon sama alpha moo jëli woon mbir ya indi jox Seydil Hadji Malick soxna moom yi yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla sàmmal la waaye ñi ñi ñi nekk ci sa wet ñooñu dañ laa bëgg te yàqalunu la sëriñ ji li ñang soxna moom yi jotaay bu mu toog ku la xamul dina la xam ku la soppul woon dina la sopp sëriñ jiili loolu dama cee xam dara ànd naag tukki maak moom bi nu xamantee ak léegi ëpp na fukki at ñu bokk Futurs Médias di liggéey muy sama mag waaye jeex ci yow tàkk bëgg la xam nga nag tuddee nit doom amatu xamatoo looy lu ci toppati ah mu jël doomam tuddee la waaye coono gu ne nga koy daj ci moom loolu man mii ma xam ci dara soxna Momy ku la bëgg euh, euh, dend ak yow wan nga ko cofeel gu mat sëkk ba wan ko lu kawee njortam kon yal yàlla guddal sa fan soxna Momy Natu yal yàlla sàmmala boppam yaag sa borom kër sëñ Ablaye Tage sàmm sa njaboot ñam yii ngay joxe boole koog belli jël sa alal di dimbali nit ñi maa ngi lay wax ni nga yëg nga ñàkk a borom bi subhanahu wa taala na lii mooy bégal yàlla lii mooy bégal rasulullah gi waaye nag borom màggal gii di seexul xadiim amadul xaakim yi ne ahmadu borom tukki bu rëy ba ki jàkkaarloog rasulullah gi ne ko yaay ku tedd ki ñu defee ne lu ñu ciy teg daa tedd man ahmadu sëriñ bamba ne ko maa lay liggéeyal antal karimu anal xadiimu dëgëral uddiimu xam nga luy dëgëral uddiimoo du du mu ne déedéet tàmbaliwul 1853 ba 27 dëgëral uddiimu ba keroog yàlla day wëlbëftu bi sëriñ Bamba ne na ko ba keroog yàlla yëgul bëftu bi ba keroog malakul mooti mii rey nit ñi bu deewee sax man ahmadu ma lay tagg anal xadiimu dëhëral uddiimu waaye fii ka sanaa yi yal na yàlla guddal sa fan alaaj daaw góor bég nanu maa ngi jégalu ci kàddu yi alaaj Tayar Samb jërë ngeen jëf asalaamaaleykum